dundu doomu adama moy wer geram yaram loolu len ko niji moy jamono ji jafe-jafe yi ñuy dafa bare trop rawatina na sen walu wer geram man nak serigne mohammed Lamine Bara Fall ni ñu bare xamé nañ ma ci liggéey bi ni men wax deug yalla ñu ci jappalé askan bi di ci jappalé Sénégal ci sen jangoro ak rawatina sen ay aajo ndax loolu bo len ko déggee moy fi ñu bare dañ fi faral di ñew waye ñi fi ñew ñep dañuy am soxla ci seen wér gu ak surtout ci seen ay aajo wala seen ay jàngoro bépp jafe-jafe bu nit am rek ci seen wiir geram lu mel ne que ndoxum siti di ci mel ne hémorroïde rawatina nag ñi nga xam te dañu am problème am doom ci góor wala ci jigéen surtout jigéen ñi xam te ne dañu am problème mu fibrome myome kyste de ak jamono jafe-jafe yu ni mel yëpp incha allahu rabbi danañ ci jàpp rawatina góor ñi xam te ne dañu am problème mu azospermie problème mu oligospermie problème mu nésospermie maanaam sperme nga xamante ni amul wallax jaan wala walax jaan yi ci war a nekk sperme bi dafa manqué maanaam wala boog dafa am problème mobilité wala vitalité ak bépp jafe-jafe bu mu ci mënti doon bu mu ci am rek incha allahu rabbi pare nañu pour jàppale ñooñu ñëpp ba yàlla dimbale couple yooyu ñu mën a am doom normalement surtout mag ñi nga xamante ni dem nañu ba am soixante dix ans feebaru prostate daf leen di xaw a sonal ñenn ñi sax dañuy am jafe-jafe doole wala ngóora wala kàttanu sëy comme ñu ngeen ko gisee ci image bi ñooñu ñëpp pare nañu pour jàppale leen bu baax a baax a baax ba ñu mën a delluwaat ci seen ay activités normalement rawatina nag jigéen ñi xam te ni itam dañuy dem ba âgé am 40 ans arthrose ak nerf yooyu yëpp muy góor muy jigéen ku mu ci daal rek incha allahu rabi xefal jege si ñu góor yi nga xamante itam yàlla dafa dogal léegi. problème mu masturbation dafa nek li xam te dafa xew te dafay indi danger ba indi ay jafe-jafe ci walu doole nguur katanu sëy bi xamanteni itim day xaw delu gina wala mu gàtt wala jafe-jafe yiñ ci mëna am buñ ci jege ser dinañu xef nañu mëna def ba jàppale len ba ñoo itim delu sen ay tayu sax normalement lolu dal amul benn problème képp ki xamanteni xamante ni yaa ngi am jafe-jafe yu ni mel insha allah rabbi mëna ngi ci jàppale bax ñaanal la faj la ba nga mëna wér ci baaxu yàlla ak magu yeneen bek aminu Serigne Touba kon nag ñoo ngi sant ñëpp di leen fàttali rek adresse bi comme d'habitude Guédiawaye arrêt Double Less ngeen laajte kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bi nga xamante ni moom ngi ma mën a jotee directement muy 77 169 45 45 77 169 45 45 képp ku woote ci numéro boobu incha allahu rabbi di nga ma jot man directement ñu mën a xool niñ dafa jàppale leen ci ticket consultation yi xam te ni gratuitement la loolu dañ leen ko may pour dimbalee ko askan bi